dafa dem retourner produi dañ ko refoulé daanaka dugul sax kooku laaj leen waa loolu lan moo tax doo leen jox suñu fiche parrainage lan la décision de justice bi amoo fi ñun kii di saba si fay ci ñëw ko ordonnance boobu anamu waaye yéen doo jox suñu fiche parrainage sama naataango bi di journal tribune ne ah waa lii mooy lan waaw lii xanaa DGE moo ëpp doole kii di magistrat ndax te ndaxte ku nekk xam na juge saba fay def na lu ñuy woowee ordonnance juge juge bu def ordonnance ne ah nañ dugalaat kii di Ousmane Sonko ci fiche ci liste électorale yi journal Les Échos ne waaw waaw lii mooy lan lii lii lu inacceptable la déjà xanaa déjà léegi moom moom réew mi ah journal Les Échos jox parole avocat état du Sénégal avocat Ousmane Sonko ñu ne waaw yéen xanaa liiru leen loi bi waa déjà liiru leen loi bi lu mu wax defa ne immédiatement bu fekkee ni juge bi dafa dogal ngeen war a réintégrer Ousmane Sonko ni ñu war a dañ ngeen ko war a def immédiatement ci saasa dañ ko war a joxe Vox Populi ne ah DGE de moom mi ngi accroché wu ci recours des avocats de l'État daanaka DGE moom nee na ñun joxewuñu fiche de parrain ndaxte décision de justice bi jeexul avocat état Sénégal def def recours yobbu ko ci cour suprême kon il faut loolu ñu vidé ko balaa ñuy xam ndax Ousmane Sonko war nañ ko réintégrer wala kenn du ko réintégrer sama naataango loolu la waa DG e wax waaye nag droit de l'homme si ñoom mer kii ki Aliou ne waaw lii mooy lan Tanor Thiendella la faat mi mi jiite direction générale des élections dañ ko war a limoger man loolu laa jàpp dañ war a limoger ndaxte dafa refuser appliquer décision de justice man atango Vox Populi joxaat parole kii di Seydi Gassama mu ne ah Sénégal état de droit à genoux léegi état de droit amatu fi ndaxte du justice day jogal kii di nguur gi toog fu mu toog croiser les bras ne lu ko neex lay def Sud Quotidien ne ah nu mu mënta mel kii di alors Thiendella Fall ñu ngi koy récuser Yewwi nee sax léegi bëggatul Thiendella Fall ci direction générale des élections <coughs> ndaxte dañoo jàpp ni dafa fara ñu wax nag ci tournée économique euh, premier ministre di Amadou Ba sama naataango bi di journal enquête ne ah kii di premier ministre mi ngi sans lui moom nag wax na ci l'école primaire yoo xamante ni daanaka dañoo délabré naka noonu itam ci éducation ak santé établissement délabré école primaire foog ñu defaraat l'école yi premier ministre bi mi ngi dénoncé itam retard tardif ci wàllu defar l'hôpital Alioune Badara Cissé bi waaw mais nag waxaati na lu ko ñu laaj sama naataango lu ko gënoon ñor sama naataango réew mi ne ah politique ngeen bu baax a baax moom mooy candidat Benno Bokk Yaakaar mi ngi doon def ay promesse promesse électorale sama naataango ne ah candidat Amadou Ba commencé na promesse yi avant sa campagne électorale bi naataango bi di journal las ne ah, ak assurance l'observateur ne ah jot na jël ay engagement candidat benn bokk jot na jël engagement tribune ne man lu ma jàpp ni ah, lii Amadou Ba de tournée économique la doon def nañu xant dëgg da doon campagne électorale campagne électorale avant l'heure Karim Wade nag euh, ñu ngi koy xaarandi ci Sénégal ngir mu euh, participer ci élection 2024 yi Walfadjri ne ah ñu ngi xaarandi Karim Wade candidat PDS bi nag foog mu góorgóorlu ci amaan boo xamante ni dañ ko teg ci ndoddam 138 milliards yéen ay ko enrichissement illicite ci wàllu enrichissement illicite ne ko da nga war a fay cent trente huit loolu ñu ngi koy xaarandi mu fay ko loolu obstacle la naka noonu itam ku nekk xam na Karim Wade géñ na fi waaw loolu tamit problème la kon daanaka xaw na fàtte yee fi nu mu mel Sénégal daanaka Sénégal jaay nu mu mel. changement yi naka noonu itam daa nga wolof bi daanaka moom Karim Wade déggul wolof loolu problème la itam sama naataango loolu la wax ñu wax nag ci vente aux enchères bien Senghor Léopold Sédar Senghor xam ngeen ni am na ay biens yoo xamante ni ñu ngi fonce sama naataango bi di l'observateur ne ah euh, commissaire priseur bi buggoon jaay bien bien Léopold Sédar Senghor yooyu mel ni ñoom ñoo ko moom sama naataango ne état Sénégal nee na euh, kon jot na waxtaan commissaire priseur mi ko doon jaay di ko ne en veux-tu voilà kan moo bëgg a jënd ñu jaay ko naataango ne ah kon euh, waxtaan naa commissaire priseur bi su ko defee mu sursoir ci vente boobu lañ Sénégal euh, jëlaat li nu mel la xañ la ñu war a ubbi nag campus universitaire bi sama naataango di suuf saa ne ah, léegi ñu mën ko ubbi conseil d'administration université bi jot na toog waxtaan ne kud ah jot nañ la carte blanche euh, nga ubbi campus bi xay na xaar nga def d'abord lu ñuy woowee sécurité indi dispositif bu leer ngir ñi fay liggéey mën a fa xëy nu mu waree leen naka noonu itam ñu bañ a yàqati bërëb boobu leen libération moom wax ci sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng yi sama naataango ne ah bâtiment boobu fu mu doll nii bâtiment bu délabré la ñu laaj sama naataango moo waral li nu mel lan moo tax kon sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng yi ci jam ñaajo mel nu mu mel sama naataango ne ah boo xoolee bu baax euh, société bi ko doon toppatoo def exploitation ak maintenance juróom benn at balaa mu koy transférer mi ngi réclamer dix-huit mois d'arriérés de loyer fu mu toll nii na kay loolu lay xaarandi ñu fay ko ko voilà muy continuer di def maintenance ndaxte du dugal xaalisam di perte di perte rek loolu la wax nee na du ci yokk cinq francs noonu lay bàyyee bâtiment bi sama natango jox parole Oumar Dramé secrétaire administratif intersyndical des travailleurs secteur primaire daanaka liggéeykat yi fay xee mu ne ah bu fekkee ni bâtiment bi nii la mel moom jarul saay ah séeréer yi nañ tàkku ba dëgër ah lu ko mooy de seen langue bi léegi mu disparaître ah, man daa tàngoo ne ah, lii mooy lan ah séeréer disparaître loolu mu doy na waar de ah dina doy waar dama naa tàngoo ne xoolal ma rek xoolal ma ci Fatick ci Sine valeur culturelle daanaka séeréer yi fulaltuñu seen culture lii mooy lan action boo xamante ni ah chercheurs yu bëri jotoon nañ ko prédire ne ah bu fekkee ni séeréer yi joguñu seen bopp de ah d'ici mille cinquante kenn dootul lakkati séeréer ah loolu moom dina doy wax naataango ne ah lu ko waral mooy daanaka wolof bi moo ko moo ko indi naka noonu itam séeréer yi dañoo bàyyi seen lakk français wala wolof loolu la ñuy lakk sama naataango ne ah il faut ñu góorgóorlu bu baax a baax na ah bu fekkee ni moom bëgguñu toog ni un jour ñu ne ah langue séeréer les bonnes